kàddu yi kàddu yi lenn rek la muy kaddu yu jóge woon Cheikh mun taxa moom Cheikh Mahamadul Bachir ñëwoon ci sëriñ Ishaq Mbacke muy sëriñ moom sëriñ Bachir te jombut ni yaakaar naa bi mu fi ñëwee daaw euh, fekkoon na leen fii ndax seen teewaay lépp wax dëgg yàlla euh, yëg nañ ko donte ña nga woon Sénégal gis nañ taxawaay bi ñuy taxaw lépp ñu sant leen ci bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom yàlla na leen yàlla fay aw yiw ci barkeb Sëriñ Touba. ba ca toppit mooy li nga xamante ne bii moom la ñu joxoon ngir ñun ñu di ko war a saytu mooy liggéey soxna jaar bi nga xamante ni bii turandoo yi nga xam ne ko tuddi woon soxna jaar ñu nekk ca daara alxuraan ja di jàng te jamono yu ñu toll seenub dund tolloon ci fukki million ak ñeent ci waxtu yu ñu toll weer wu dee bu nekk euh, sëriñ bi tànnoon ci dëkk bu nekk mu dem fa ngir waxtaanal mbokki taalibe yi ngir kenn ku nekk sa pas-pas di ca dem ndax bu ñuy wax sëñ Tuubaa soxna jaar a tax ndax ginnaaw dogal suñu borom soxna soxna jaar la ko jaarale. mu mel ne kon saa bu ñu joxe sëñ Tuubaa rek wala ñu joxoon sëñ Tuubaa rek bu ñu geesoo la ñuy joxoon soxna jaar ndax liggéeyu sëñ Tuubaa ci kaw suuf soxna jaar da caa jàpp. ndax ku ne xam na ne soxna jaar ak dundam lu gàtt la ci fanweer ak ñett la waaye diiru fanweer ak ñett yooyu dafa nekkoon soxna soo xamante ne di nekk soxna su tedd bokk ci saalihaat yi bokk ci jigéen ñi nga xamante ne nii dañoo nekkoon jigéen joo xam ne da daan déglu ndigal yàlla yi di ko jëfe waaye daan topp ndigali borom ko ne daan ko jëfe ba sunu borom may ko xaadimu rasulullahi Sëñ Tuubaa nag dafa dem ba ni ma koy waxee rek xaadimu rasulullahi garaat la boo xam te ne lu mu liggéey ba am ko la ndax abdullahi wa xaadimu rasul te moom la daan liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax saa su nekk day wax ne sama tur weesu doon abdullahi wa xaadimu rasul doon jaamu yàlla tey aji liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci noonu la nekke woon ba ni mu fi jógee ci loolu it ci la nekke woon nag ba sunu boroom may ko loo xam te ni mayu ko kenn mu soog am nag pas-pasu génn waxal boppam ni sunu boroom may na ma nangam ak nangam ci lool yi ci laa nekk ab laquwaay ak wéeruwaay kon képp koo xam te ne taalibi Sëriñ Tuubaa nga na la wóor ni am nga ab wéeruwaay am nga ab laquwaay waaye na nga góorgóorlu ci la Sëriñ Tuubaa nekkoon nga góorgóorlu ba nekk ca wala nga góorgóorlu ba Sëriñ Tuubaa la mu digle nga nekk ca liggéey boobu nga xamante ne bii moom la ñuy def ca Porokhane muy soxna jaaro yu nga nekk ni dafa nekk ñu toll ci juróomi téeméeri donga yoo xamante ne ña nga ci di jàng ak lu ëpp loolu ñoo xamante ne ñi ngi bindu di xaar ñee génn ba ñee mën a dugg loolu sëriñ bi joxoon ñu ci ndigal ci ndigalu si Muntaxa eh, nee ma fépp foo xamante ne bii taalib Sëriñ Tuubaa ma nga fa te sa tànk mën na fay dem nga takk sa ndigg takk ak der fas yéene dox loole ba seenu ñaq di dem ci liggéey boobu loolu laa fas yéene yamalu ko ci biir tay jii yamalu ko suba yomuñu ginnaaw suba fas naa yéene bépp daare dinaa fay dem ndax damaa fas yéene mu nekk lu sax du loo xam te ne dama koy def tey fàtte ko déedéet ndax ndigal la loo xam te ne sëriñ bi la jóge te ñun sëriñ Bassirou lañ yaakaar mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg euh, te bu kilifa gi waxee amatuñ lenn loo xam te war nañ caa doxee jaral nañu bàyyi sunu liggéey takk ak der nekk ci loolu ba bañuy faatu ndax loolu la ñu xam ci loolu la ñu dund sunu baay nekk na fi ba mu ba jóge fi musta liggéeyee len len wala musta dox ci lu du ndigul sëñ Basiru ndax njenn nga mu nekkoon ndax sama jur ak sëriñ Mbàkke Jenn moom Cheikh Issa Jenn ñu bokk benn wayjur waaye sëriñ Basiru ko jëlee njenn xamale ko ne ko lii Cheikh sa Jenn am sa maam li sa maam sa baay bi lu jur liggéeyal na ko sëñ Tuubaa kon buñ la jël bàyyi la fii na nga dem njaarim ga nga xam te ne fa la sa maam nekkoon ak sëñ Tuubaa kon ñun dañoo am wàllit ko sëriñ Basiru moo tax bu sëriñ bi waxee joxuñu ndigal ci loolu kon dañuy am pas-pasu doon ab ndongo loo xam day takk ndigam fa yéene ànd ak suñu mbokki taalibe ñu liggéey ci loolee. ndax euh, képp koo xam te ne bi def nga ci saw ñaqit na la wóor ni bu ëllëgee Serigne Touba mën na la ko séddee ci kanam soxna jaar ndax nañu wóor ni soxna ya nga xam ne ñoo fa nekk di jàng alxuraan ëllëg mën na yoon ab saalihaat boo xam te ne kenn ci ñun mën na caa denc ci kenn soxna te su boobaa mën na laa jural koo xam ni ne ku ñu war man lay doon muy lu mat a bàyyi xel ndax boo xoolee ba daara ji sosoo ba léegi la fay jugee ci ay jigéen di génn ak la fa nekk suñu borom mën naa dogal kenn ci ñoon dox ba dajee ak ñoom kenn te su boobaa mën na laa jural so euh, nit ku baax koo xam ni ku ñuy warmal la kon may sàkku ci mbooleem taalibe yi nga xam ni bii ñoo fi daje ak fu man doon képp koo xam te ni bii saw ñaq ma nga def xeebuñu cent peso xeebuñu cinquante peso xeebuñu lu mu mën doon ndax sëriñ bi lu ñu waxoon mooy képp ku mën a sosoo benn soxna jaar muy trente dollars trente dollars bu ñu ko xaymaa mooy quinze peso par weer ku ko mënta sasoo nag lay sa addiya nga fas yéene di ko joxe may koy sàkku ci mboolem taalibe di ko yalwaan taalibe dañoo war a yónnee addiya ji ndax weer wu dee wu nekk sëñ bi dañoo sas ni lépp luñ fi dajale nañ ko yónnee te it weer wi dee na ñu fas yéene ko di yónnee bi ma ko waxee sëñ Pape Soda it mu nangul ni ko nekk nit ku baax ku dëggu koo xamante ne bii sëñ Tuubaa dong nga ko ñor leneen ñoru ko te it ñu nit loolu dong ci la ñuy dox lépp loo xamante ne àndut ak liggéeyu sëñ Tuubaa ñun suñu yónnee ko ci ci loolu rek la ñuy dox ci ndigal dong lañuy dox di nuyuwaat bu baax a baax sama rakk ji nga xam ne maa ngi ànd ak moom monsieur Mame Thierno Amar euh, di kilifa ci dëkk bi di sama rakk di sama lépp euh, maa ngi koy siyaar bu baax yéex a nuyoo nag dañuy wax ne yéexuk cant la ndax yonent bi sallallahu alayhi moo gën ci ñëpp te moo mujj kon sëriñ bi ñu ngi lay siyaar bu baax Amar di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax. di ñaan sunu borom yàgg sa taxawaay ba li nga fa seen liggéeyal borom daaru sunu borom mottil la ko ci barkeb Serigne Touba ñi ngi sant mboolem taaliba yëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla na leen yàgg taxaw ba lépp loo xam yéen a ko liggéey suñ Touba biir sunu borom yàlla leen ko mottilil ci barkeb Serigne Touba ñi ngi siyaare mboolem ko fi teew nag jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.